erreur war nga koo mën a jéggal kon moom Abdul euh, li mu bëgg mooy Ajara baal ko waaye nag nanguwul sax dégg ay waxum fase ñu jàll ci Madi Madi nag wax bi yëpp Leya pour na ni Birane dugul ci moom gratuitement bu duggee ci moom pour euh, rey ko la wala pour am ci moom ay yi mu bëgg waaye heureusement ba moom mi nga xam moo di Madi instant yi euh, bi la bëgg ba tax na nag lépp daal dina koy wax Leya ngir mu xippi bëtam xool ñu jàll ci Imam Sugu Imam Sugu nag ba tey nanguwul wax dëgg bi Souleymane mi nga xam ni mooy détective bi pour nag euh, mu daal di koy euh, xamal ci li nga xam ni moom moo am ci euh, ajara di fii bi nga xam ni moom lay wër boobee ba tey waaye nag ki nga xam ni moo di Souleymane moom gis nañ ni mi ngi insister ba tax na nag imam sugu daal di koy génnee këram ndax jàpp na ni Souleymane dafa ëppal loolu yëpp nag yaakaar naa su ko defee pour ragal ñàkk doomam ajara la ndax nit boo ko yoree mu nekk xale ba màgg nit ñëw fee di ko wër nekkul loo xam ni doo papa mën na ko muñ yaay itam mun na ko muñ ndax doom même boo ko jurul waaye la fekk nga yar rek minal ko kooku da nga koy mel euh, day raw sax doom bi nga xam ni moom nga jur ñu jàll ci Fadel Fadel nag moom ngi profité wu situation bi pour gën a jege Ajara ndax gis nañ mi ngi waxtaan ak moom waaye nag yemu cax di ko won euh, que nit ku baax la ndax nit ku baax la jëkkër ak jabar di am problème ngay wax lu baax ci jëkkër ji pour jabar ji baal ko te nag loolu la def ndax mi ngi défendre Abdul di wax si baax pour ki nga xam ni moo di Ajara daal di koy baal waaye loolu su ko defee sax xam na ni Ajara du baal Abdul waaye pour Ajara euh, daa bàyyi xel Fadel xam ni Fadel nit ku baax la ndax nit ku baax rek mooy doxalee noonu ñu jàll daal di ciy Leya Leya nag moom pare na pour lépp pour démasquer ki nga xam ni moo di euh, Birane nga xam ne dafa ñëw présenté wu en tant que Amdy ndax Amdy la jox alors tuddul noonu waaye Leya moom euh, moom it li bëgg mooy jouer le jeu euh, def ni moom wan ko ni ko rek moom moo ko gën a muus waaye itam moo ko gën a ñor ndax wanu ko benn yoon que ni xam na ci moom dara waaye nag da koo war a gën a woon affection gën koo woon mbëggeel ngir nag li mu bëgg mu daal di koy atteindre moom it ñu jàll ci ñu xam ajara yëpp moom moo ko gën a bañ mu mel ni li ñu naan xolu yaay ci doom kon moom Salla même bu fekkee jurul ajara te adopté na ko bëgg ko bëgg boo xamante nii xalaatul ñu koy foqati ci ay loxoom euh, ba tax na bëggul sax waxal wax ak Souleymane ba tax na mu daal koy arrêté ne ko rek na waaye Souleymane moom bañ na ndax moom it jàpp na liggéeyam lay def waaye Souleymane su moyuwul moom it dinañ ko démasqué ndax maalaw bi dafa ñëw daal koy xàmmee